mosu ah xëy na nag li fi nekkoon benn télé bi fi nekkoon ak benn rajo bi fi nekkoon li ngay bëgg a def mais président président Abdoulaye Wade mhm. président Abdoulaye Wade mhm. président Abdoulaye Wade oh. lu mu déggul ci nguur amut amul waaw président Abdoulaye Wade lu mu déggul ci nguur amut mhm. lu mu déggul ci nguur amut donc kon man yaakaar naa ni maa ngi laa yëgal dara doguma la organe de presse di ko tëj musiba la musiba la kenn du ko def euh, euh, euh, ki président Sidy Lamine Niass lu mu dajut amut bu baax waaye kenn musul tëj rajo ni tegal. Hmm. mais président Macky Sall yow da ngaa ñëw rek singili président bu gàllankoor. non dama bëgg nga ma a wax waxal parce que yow. moom waxal ci loolu dama ci bëgg a wax xam nga lu ma a wax sax il faut parce que boo taxaw fii naan président Macky Sall booy tëj. Cheikh ñëw ma fi tëj fi dama bi fi tëj dama fi gis man maa tëj sant fi il faut ñu respecter Sénégal ku xëy suba sax amoo dépense ne président de la république moo ma ko teg. dëgg la tegu ma leen ko. mais dëgg la yaa leen ko ku xulóog sa jabar ni président moo ma ko teg. président ku sax boo xëyee sax sa xar dee. nga ni président moo ma ko teg ki suukar kafeem sax. saful mën naa ko teg yaa ko teg non tegu ma ko. non non non non Cheikh bul wax loolu. xam nga tey réew dafa am dañ ko gouverner. ma jiite gouvernement ma mais ma samp ñoo xam lu mel ni sénéra ñuy xool bu fekkee ne dañ naan lii amoon na fi rek nañ ko bàyyi. li xewon na fi tele mos na fi wax lu ko neex kon na continuer kon rewmi du dam bu fekke ne tele dañ fi dan saga nga ne saga mosoon na fi am est ce que saga bu fi mos am rek dañuy konne di saga lol pour lan est ce que xasaate wax lu bon ci rewmi bu fi don mos am dañuy konne di ko def sax duma ko nam mais le président mais le moy sa problème ak président bougan bougan aw mak mom problème mom nee da fay juk xalal lan leena da fay daf may top pour top tank tank yaa na top man sama nekuti mais comme nee mom ligueyam mo top sama tank tiiñal ma moo ko tax a jóg xale la mais tiiñal mag xale buy tiiñal mag du loolu la bëgg a liggéey moom ah mi ngi noonu dafa bëgg a di tiiñalaata du dafa xëy rek pour tiiñal ma amul problème. Cheikh noonu. non mais ah. dama bëgg a yàggale may ma tuuti ci Sen TV parce que ñu ngi may bëgg a naan ay may tëj média yi man tëju ma média. waaw dëgg tëj. waaw day xool bu gisee loo xamante ni mën na lakk dëkk bu fekkee da nga ne loo xamante ni mën na taal dëkk bi di wax loo xam ne mën na lakk dëkk bi Sanara bu gisee li daf ko war a censurer alors man la man waxoon dëgg sax man tëjuma mais rôle rôle presse joxe information. mais presse rôle presse joxe information man lay wax man lay wax ci koy yor. bu mbir def mi na du nuru werante te du ko doon. yow comme yow la yàlla dogal nga jiite da ngay yow Nyamit, ñoom ñu comprendre ni manam tekkiwul ni tay da nga dugg ci politique bo waré fay dara fayoo ko nga ni président la mbubboo ko dëgg dëgg nan ko bàyyi xel président yi bu lu yawit bu nit ki dugg ci politique def la lu la nakari taxit nga ni da ngay tej kon ñom ñaar bu ci kenn ku ci nek comprendre sen borom ci liñ wara def ndax ku nek askan wi ngay liggéey président ci kaw la ne di accompagner ngir askan wi li wara dox ñiwit askan wi lan taal di informer te xanaa xamoo ni président presse gi bis bu amulon mara détaillé askan dina tëb songu len ndax li tax ñoom ñuy ñuy ñuy occupé wu. maanaam di fàtte yu bari. lii moo koy waral. mooy la euh, euh, mooy la Seydi Lamine waxoon. bi ko Abdoulaye Wade waxee ni ko dama bëgg nga bàyyi euh, wax sa xalaat ndax gis naa ni wax sa xalaat yaa ngi koy wax nit ñi di wax mu ni ko déet bu fekkente ni nit ki jël na téléphone am. Mhm. maanaam woote wax ba géex danaa dégg la ma wax day tax maanaam reverté wu du am. moo tax presse ak président ñoom danoo war a juboo président nga xam nit xooñ gis nga xooñ ceeb la woon nii moroomam jiitu rek ko ko def <laughs> bu ko defee nga muñee noonu rek. ah dëgg la mais xooñ tam bu nekkee xooñ dañ ko war a nangul xooñam ceeb bu yàggagul ci xooñ. na nangul xooñ xooñam ko nangul jàppal ni non mais ceeb bu yàggagul ci xooñ na nangul xooñ xooñam. <laughs> nga daal war mais maa ngi jégalu. mais maa la sax dog parce que sama kilifa nga. ah dog nga ma nag. déet Mbacke bul loolu. Ah, yow sama woy na sama xarit ah, naa la ko yow sama xarit. waaw waaw bëgg ñu ñëw ci ci internet yi

fi réew mi toll nga xam ne éducation dafa dem ba manqué hmm. waaye tubar fa kan la sa njaboot kenn ràññewu leen ci wax fa dëgg yàlla sa njaboot kenn ràññewu leen ci njabootu sëriñ Modou Kara Mbacké kenn waaye dañu gis ci jamono ji léegi moo xam internet bi da ngay gis président de la république wax walla opposant bi wax intéressé wu la arrangé wu la nga daal di bind say bind say commenté saaga bi. vraiment ñu ñente sutura gi yàqante bi. beneen bi ci tege mooy rey gu bëri gi ci réew mi te suñu wayjur wu sell wi suñu maam ju baax ju Cheikh Ahmed Tidiane waxoon na ni réew mi nañ ko sang balaa muy sangee boppam deret sëñ Moustapha éducation bi niñ ko commencé raté sëñ Moustapha si lan moo ci sa xalaat. jërëjëf Cheikh damay delluwaat rek ci kàddu yi gor su baax si yëkkati. Mbacke Balaye sa wax ko ci ki toog nii gis nga réew boo ko yoree boo bëggee tëj organe de presse yi mooy jubuloo parce que ñoo war a wane yii xew ah mais boo ko nëbbee mar de Italie parce que pouvoir yu bari fekk nañu fi dëgg président yi bëri nekkoon nañu fi dem li ma wax sànq rek borom bi moo fi dul moo fi dul jub waaw jël wala jël wa jëlaalo waa zëkkamal ku dul moom di nga fi jóge dëgg la jarul tëji télé jarul naaw wàccaat yépp da fi fiy jug boo fi waree jug ah. Ah, ah li nga wax nag ah, jaru ko parce que li nekk rek laa wax euh, li nga wax ni dañu perte repère mhm. da ngay rey nit yaakaar ni pison nga rey mhm. jamante bi yàqante bi waxante lu bon waaw yàqaas gor nit ku yàlla baaxal nga ni du fi baaxe xam nga tey laa lay wax benn affaire mhm. gis nga bu yàlla tracé nga effacé mu tracé waat nga effacé yow lay effacé continue tracé wu dëgg la dëgg la dara jaru ko dëgg la ko rawatina ñoo bokk réew mi mhm. ki jiite na yërëm ñi mu jiite mhm. ñi nekk ci ginnaaw yërëm ki jiite. vraiment dëgg dëgg. mais ki jiite tamit nay jubal parce que nit mënul wax jiital leen ma ba jiital la nga bëgg leen a nax. mënta ne Sénégal ay borom xel a fi nekk yeewu lool. waaw kenn mënuñu nax. moom naxuñu kenn ma sàmm lool kenn mënuñu nax. am ram moom yàlla dogal ñu naxuñu hmm. kenn ah. nañu teg lépp ci yoon rek. dëgg la si ah. yaram dëgg la dëgg la. nu bàyyante xel. Hmm. Ah, di laayante biir c'est très important. Hmm. waxtaan lu bon bari waxas gor bam wax ak yow ci kàddu gor xëy gis ko ci internet bi <laughs> vidéo nit wane ko yooyu daal buy xew mujjum jamono ngi ñëw parce que xamuñu ko woon dañuy ñaan rek xale yi nu bàyyi xel xam ni réew mi ñoo ko moom ñu bàyyante xel ñaan jàmm ci réew mi mm-hmm. parce que am na jàmm bu nu sàggan parce que loolu bu nu sàgganee li may gis bu nu sàgganee musibaam man maa la ko wax. maanaam ba tey wax ji Seydina Cheikh waxoon. mi yaa nga ca kitaab. réew mi buñ ko sangul. mu sangoo deret dana sangee boppam deret. maa ko gis en face. xool yi day bax. dangay romb nit mu saaga la. te defuloo ko dara. vraiment. ah ah. kenn xamul kenn xamul. mais mais mais sëñ Modou Kara aussi tamit. jamono waxoon na wax ju am solo mu ne bu ñu ibbi woon prison bi jox ko prisonniers yi moo xam yu góor yi ak yu jigéen yi mu tàggat leen ba sax ñu gën ku ñu war woon gën naam gën nañu ndax prison mën na dal ku baax mën na dal ku safaanoo waaye nga defar leen ba nu del soit ci société bi ndax loolu sëñ euh, sëñ Modou Kara Mbacké yaa ngi ca ba léegi waaw Cheikh <laughs> loolu moom daanaka tey laa ci gën a ne ndax mësuma caa ndax bu ngeen fàttalikoo quatre-vingt-quinze am na ñu ma yóbbu woon lan saar defe naa ni vidéo yi mu ngi circulé waat ñoo xamante ni seen mbooloo ñëpp geddoon na leen seen way jur hmm. seen i ñu jaay ak ñëpp te ba ma fa jaaree fa ma jaar ak ñoom tey bu la nee diw mi ca la bokkoon nga ni déedéet moo tax réew dañ koy préparé ci hmm. taarix xam ndax maanaam dafa am ci loo xam ni il faut ñu di ci delluwaat nit boo ko bëggee tere lépp yow lay bàyyi hmm. maanaam na ñoo xamante ni danoo dëng maanaam danga leen di may sens ndax li may faral di wax baax ak bon fa mu nekk ci nit nit xamu ko mhm. maanaam nit yenn saay mu def erreur erreur bi ci moment ba mu ko defee la ca pare te xamoo ko nga jël ko dugal ko ci kaso boo xamante ni atte woo ko yàgg googu mu fay yàgg maanaam dina permettre mu do mu rankinam yóbbu ko ci leneen moo tax ma ni kaso yi parce que tey exemple bi barki dem moo njaay ku ne xam na ni waa base jàpp nañ leen fi mhm. jàpp 43 personnes Lama ma cay wax moy sektor secteur bo japon 43 personnes ngay taali puna deug la ndax deg nga ñu dama bant dedet ta banu duggé ci prison bit jox nañu réew mi raison ndax képp ku fa nekkat ñi jàngal na leen alquran ñi ña ngay jang xasida ñi ñi ngi leen di jubanti motax man leen nañu genn ña deful dara ta ñen ñu ñu bayi leen fa ñu def lañuy def ta bo xolé ñom ba base tejé ba légui c'est-à-dire Sénégal dañu gaaw faté waye ba base tejé ba légui mhm. da ngay gis ni am ci la rayenté yi gëna bari ndax ñan donté di yobbu base defar leen ak ñu mel ni ñooñu lanu tëj fan leen doon yóbbu moo mhm. tey foo faut njiitu réew mii muy wax ak ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñun ndax pouvoir temporel ak spirituel ñoo mës di ànd bu ko defee am na yoo xam buñ ci tewee ñu jox nu ko loolu tey laa ko gën a wax kaso bii bu ma ci duggoon wallahi ñëpp danaa fexe ba nu nuus ni nacc ndax nit ñi compliqué wuñu <laughs> waaye waxtaan wi ak si wu defar nit ñu ko am bëriwul. <laughs> Eh, ndeysaan jërëjëf sëñ Modou Kara Mbacké mais président Macky Sall li eh, eh, dana dana ñëw ci dana ñëw ci longue détention yi mooy ñi nga xam ni dañ leen war a atte attewuñ leen ñu yàgg ci kaso bi ñu atte leen ni leen defu leen dara ñu bàyyi leen te buñ leen bàyyi duñ leen jox lenn loo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour defaraat seen bopp loolu war nañ cee wax wala jàpp nit ki téye ko tëj ko dix ans xëy ubbi ka ni ko defoo dara bàyyi nañ la demal bàyyi koo loxoy neen président Macky loolu war nañ cee wax waaw d' sax yow fi la ni nii xam naa et puis ak ak militaire yi nga xam dañ leen di dañ leen di libérer militaire bi nga xam jangal nañ ko. Hmm. mu xam ni ñuy tiiree fetal. Hmm. xam ni ñuy armé ni ñuy désarmé xam ni ñuy cambriolé nga jékki-jékki libérer ko sans tek ko ci dara. Oh. loolu it président Macky Sall loolu war nga ci war nga oh, ci. wala ma ci wax dama la bëgg a laaj benn question. Hmm. yow xam da nga bokk ci. non man may laaj question président. war non man may ma tuti non man kenn du ma laaj question damay laaj boo xam da nga bokk ci mouvement Tiñal Macky wala. non man kenn du ma laaj question président. non je demande man fim fim dal ni man may poser question man kenn du ma laaj question bokk ci Tiñal Macky non non non man qu'elle doit ma pose question. pose question non non, la poser question parce que li ngay wax da nga pour tëñal mais mën naa ci di problème. Oui, mais man man président man président doo ma président ma question présenter émission. d'accord mais vous faites que na loo côté dama ci <laughs> je suis le président. il faut que respecter ma ma président vous ko Président, mu d'accord mais xam nga que vous da présenter émission yow yaay yaay poser ñu lay répondre président. mais bu non kan moo la wax damaa daw question dafa ndàgg mais am naa droit laaj ko question bala may compter sama question yow wax nga wax du rafet bu ci tegaat leneen. waaw dinañ ko réglé. waa Cheikh doom may ma wax. waaw te daal président Macky Sall daal te indiwul te indiwul neex dara daal. non dara dès le moment que tu as accepté de venir ici. si la lépp jeex moom tontul ci lim lay laaj. et puis c'est pour l'intérêt du peuple yow tamit. mais dafa ndàgg dama la tontu baal ma ko waxul tontu mbaram. yaa ngi koy piis de. piis bi non non sama bët bi moom problème. dama ne problème. non gisul non seex bu xam nga léegi mooy tiñal la ngi ne magum jamu de wax nga ne ko yaa ngi. waaw kon est-ce est est-ce que. parce maa ngi gis yéen ñaar daal. non non non diggante bi daal amul lem daal. non non am na non am na lem est-ce que bokkul ci tiñal. non moom dafa mel ni taxawaay boobu la taxawee man xaw ci kër gi la nekk xaw ma tax ngay wax loolu yow non bi nga duggee seen TV ba wax dëgg maram waxal auzu billahi mina seytaan rem ñaan Cheikh li wax ngay wax yow tamit waa tontu man daf leen dagg mais bu ngeen ma rabax rabaxee tey leen dinaa ci tontu mais bu leen ma rabax rabaxee. sëriñ yi ngay wax. non ñi laa wax ñoom ñaa ngi bu ma ma dugal gis nga boo ma dugalee dugg ci bu ma jéem a dugal ñoom ñaa ngi ko lay wax dama leen bu leen ma rabaja rabaja li may wax. vraiment da ngeen ma rabaja rabaja. loolu daal ci question bu yàgg. waaw ni ma ko naka waaye askan boobu tey xanaa ñu non waruma dama ne ko ba xam da bokk moom moo ma waroon tontu rek ñu avancé. ba xam da bokk ci mouvement teñal wala bokkoo ci. Euh, pour ma a xam ki may moom mooy posé question ba xam teñal la bokk wala animateur la. waaw moom xam nga chéri li ñu soxla ce sont des may ma may ma rek c'est mon mari xam naa ni may waxee ak moom. ñàngu xam naa da nga fay sa micro taal sa taalal sa micro. bës ko mu verte ñàngu <laughs> may ma sama mari xam naa li may wax ak léegi man léegi man léegi man bokkuma APR bokkuma tiñal man léegi Sénégal laa bokk. Oh, d'accord na la waaye léegi tontul ci laaj. mais del wax nag waxi ku bokk Sénégal. parce que non da ngay wax wax bokk bokk Sénégal. maa ngi jégul may wax wax yoo xam ne ay waxu tiinal la. damay gis tontu man dama yaakaar ni président Macky Sall man dama yaakaar ni président Macky Sall xam nga dimanche xam nga président Macky Sall dimanche yi la plupart de mu fekk ko palais euh, fii ci Dakar mbaa mu fekk ko Popenguine. xam nga dimanche lu ci ëpp day seetaan gis-gis man dama yaakaar dafa yaakaar dafa nekk gis-gis. non sax nekuma gis-gis. waa president non man nekkuma léegi man bokuma APR. bokuma tignal legui man senegal la bok léegi waa léegi longue détention yi wax ci. benen beneen tagge moy nga wax tamit ci ñi libéré ba paré te duñ len jox lenen luñu té d'accord lolo nga wax amna solo. wa amna solo mais lima la waxon tam bay ci xal ya nga dog fo mu bay ci xal no du xool ak di retam jarul ray ah nga baal ma. góor ñoo ñuy seetaan. ay góor rek a toog. il est modul bi muy wax nga. waaw te nee yegg. may ma ma yeggali. mu la laaj. ñu ngi dégg c'est clair et net. longue détention yi lu ko waral. tontu ci pour ñu avancer. d' accord garaaw léegi dinaa ci jéem a tontu. Mhm. mais pour ma tontu tam am na question yoo xam ne danga nga war a consulter. non da nga non dafa ndànk waaw wuyu ma parce que man jotoo. waaw waaw déet wuyu ma baal ma mais Serigne Modou Coran. waaw ah, déet comme technologie bi dafa avancé te demee na ni léegi na la ko message ñu avancé.

yaakaaruma ko ci jamono ji vraiment. pourtant ma war a defar réew mi. Uh-huh. li lay laaj nga koy vocal. pare woo. technologie bi comme moom day. mais Serigne Modou Kara ah. layam layam kay. non xam ni kat yow yaa yor réew te xam nga yaa ngi ñëw xam nga li ne ci. te eh, Cheikh Cheikh waaw ah ah ñaa xam dañ leen a ay dañ leen dañ leen a dóol yóbboo ci ci prison seen kër yi après ñu tëjee foofu ba yàgg maanaam ñeexal nga ñoo war a saytu seen këyit bu dee Dakar la ñetti sàll bu dee Pikine benn sàll tabaale bi yaakaar naaw fi filo fi la problème ëppee te te wala xam nga loolu tamit problème la moo tax ngay gis koo xam ne mën naa def fukki at yoo xam ne kenn xool kii yow parce que ñu ñu war a xool seen kii daa bali te vingt la ñànk ñànk il est informé soo nekkaa soo la tamit mais léegi yow loolu wóor na la sa diggante ak yàlla nga ci si Pikine Pikine moom bu leen dàq question bu pertinente la laaj parce que bu dee bu Pikine am na ñu ñu war boobu ba léegi li tax attewuñ leen juge bi ñu war a installé installé guñ ko ba léegi wala ñu ne bureau booy pareegut am na vingt bu ñuy installé boo pareegul benn rek moo fa ne waa léegi waa léegi ñi nga xam ni tey bu leen juge bi àttewoon trois mois la leen di tëj oh. te boobu ba léegi a nga tey ji problème bu leen ma yaa problème di ma buux problème bi bu leen dal sama kaw comme ça mais daf leen dànk bu leen ma dal sama kaw ci mais dama leen leeral benn affaire tey ji li nga xam ne mooy li ñuy parce que enquête dafa am ci mënoo jékki jekki rek jàpp nit nit def dara est-ce que kooku ma ko def est-ce que defu ko loolu temps lay jël parce que pour nga àtte nit ki il faut nga def ay il faut nga jël sa temps xool dossier bi mais bu dee dossier bi da nga jël sa temps lu yàgg nga dem ba gis ni kii kat wax dëgg yàlla deful dara mais mën nga ni ko ah yow mii kat defoo dara mais pour koo mën mënoo bàyyi nit ki te xamoo ba xam def na wala deful te enquête bi dafay jël temps par rapport ak saal yooyu ngay wax saal allah am nañ ci ay mëbët. am nañ ci ay xalaat yu ñu ci. yaa ngi jël ay mesures. xam nga li mooy tiñal. yaa may jël nga ne ma yaa ngi jël. en tout cas bu ko mënee defar. mesure bu ko mënutee defar ñu Ousmane Sonko la ñuy voter ñu fal ko mu nekk président de la république. ah ki na génn sal bi. ci biir Cheikh na génn. Ousmane Sonko la ñuy voter. non non non génne leen ko génne leen ko sal bi. Cheikh da ngay defar mais nag mais nag mais nag mais nag man du ma réew mi Ousmane Sonko rek nekku fi. vraiment. waaye Ousmane Sonko moo koy diir. waa léegi waa léegi tey yow dama lay dama lay jox benn affaire tey. xam nga ñun benn problème la am ci réew. Ah. problème bi ñu am ci réew mi mooy est-ce que buñ dee fal nit Sénégal ëllëg bu fi président Macky Sall mii di jógee parce que deuxième deux mandats la war a am. inshallah war a am. kan moo la wax loolu. léegi deux mandats deux mandats bu jeexee xaaral xaaral léegi deux mandats deux mandats bi bu jeexee deux mille vingt quatre. Ah. est-ce que candidat yi nga xam ne moom la war a teg xaar xaar président non non décision bu garaaw yaa ngi wax sénégalais lu garaaw loo xam ni maîtrisé woo ko parce que doo justice doo chef suprême ki la yemal du bu ma mayee rek ma eggali est-ce que président Macky Sall mi nga xam ne 2024 la mandat di jeex loolu warul la loolu yàlla rek moo xam li xewal la yàlla rek moo xam loolu warul la loolu warul la est-ce que bu ñu dee xoolaat candidat yi ñu war a am warul la waru ko day non non non bu ñu 2024 war a takk yàlla rek moo xam loolu waru ko yàlla moom la xaaral ma xaaral ma jóg taxaw pour pour li may wax mu leer merci maanaam vingt quatre day arrêté waru la Chine may ko mu eggali xaaral léegi sëñ ñaan leen ñaan ñaanal leen ñu euh, euh, sang bi tuuti mm-hmm. xaar ma xaar ma yëkkati sama micro mm-hmm. comme ça li may wax gën a leer ah toog man su ma dugg nii xaw ma lu mu doon. parce que réew mi na foo xam ni. il faut ñu wax dëgg gi. te waxtaane ko mu leer xaar rek xaar rek xaar rek bu ma xaar pare ci may def dafa xam te lu tey. bu daan foog ñu wax dëgg gi. ah na naan animateur la nee na animateur déglu leen ko. mais animateur bu naan foog ñu wax dëgg gi. non xaar rek xaar rek ba ma dugal sama micro ba pare léegi. Ah. réew mi est-ce que tolluñu fenn pour defar réew mi. bu ñu nee ba 2024 jeex parce que dafa am ay erreurs yu bëri yoo xam ne dañ ko def ci ay choix bu ñu nee vingt 2024 jeex. candidats yi nga xam ne ñooy ñëw war ñu war ñu ñu war leen ñu war a nekk ci ñi ci ci ñi ci ñi war a jiite réew mi ëllëg. est-ce que jarul ñuy ci nit ki ne kii lan la defal réewam ba pare. lan la def ci réewam ba pare. maanaam est-ce que créé woon na télécentre. waaw est-ce que créé woon na boutique. Mm-hmm. est-ce que créé woon na ay emploi est-ce que nous jarul par exemple euh, euh, euh, Moustapha est-ce que uh-huh. lolu jarul parce que tay bo candidat yi nga 2024 inshallah uh-huh. parce que parrainage mom dañ ko wara a ci affaire da nga bëgg golo gu wala gu da nga bëgg il est parti de rien supposons supposons mm-hmm. président il est parti de rien ci dix mille la jóge ba milliard. créer ay société dix mille ba tiiñal dix mille ba tiiñal mag. créer ay société créer ay société yu bëree bëree bëri bëri bëri. ba tey ko boo ñëwoon ni ko tey dénk nañ la réew mi kooku xam ne ni mi gérer réew. wallaay waaye waaye ki nga xam ni. moom employé la. nekk employé nekk employé nekk employé ba jóge ci employé taxaw ne dafa bëgg jiitam réew ku mës ta jiite ab société wala créer am société est-ce que di nga mën a jiite réew tamit loolu c'est question. question bu am solo. dama ne ku nekk war ci bàyyi xel seex moom nga posé. xam nga Sénégal problème bi nu am. Hmm. mooy mënuñu fal. folle rek la ñu mën. bu nuy fal nit dafa war am ay critères yu nuy koy fale. ndax bëgg na réew mi. ndax intérêt population bi moo ko fi bàyyi. yëpp bu dajewul. yooyu yëpp bu dajewul buñ ko falee tamit ci yi la ñuy mujj moom mii toog waxtaan na ak moom waaw ma woo ko téléphone ni ko deux mille vingt quatre xam na xam nga li ma la wax ci deux mille vingt quatre bi ba wax ma sax ni ma bokkuma ci sax damay bëlëfe gaa yi Hmm? yaa ko wax. est-ce que jotoo woon booy boobu di toppandoo président dégguma non est-ce que jotoo woon ñoo ko mooy booy boobu di toppandoo président est-ce que du moo la woo. parce que nit tam mën na parce que booy dañuy jekk di woote ay numéro est-ce que du loolu. jot yow laa jot. ak ah, ñu waxtaan ba ni ma yeneen 2024 moom bokkul. waaw ah, loolu nag bu ko gor waxee 2024 moom ci yàlla la nekk moom. yàlla mooy dogal mais ci yàlla ak yow. ok Cheikh Cheikh. ci mais président Macky Sall même ni ni ñu nekké ni ni ñu nekké ni en direct. Ah. ñu ngi xamal ni ci VDN bi. mom moy ci ci VDN bi euh, côté euh, VDN 3. waaw insécurité bi fa nek djigina dayo dayoo. éclairage public bi nga xam mom la. VDN 3 war a am. amu ko agression bi dafay takkarnaase trop trop trop. ba ci ba ci ba ci VDN 3 mooy VDN 3 bi nekkee géejawaay. secteur boobu maanaam insécurité bi. dafa bëri trop trop trop. ñu fa lay jaar chaque jour ndax ah. fa lay jaar chaque jour. mais euh, xam nga trop ban ban scandale moo fa am. Mhm. yi si kii waaw gars yi dañuy jël nen nen ñu sànni ko sa pare-brise suñ ko sànnee xam nga sax nga koy bale soo balee dootoo gis après nga taxaw gars yi fekk la fa. insécurité boobu fi nek oh, ak ak éclairage public bi nga xamné ñom problème bobu dëkk bi. kleum lëndëm tamit loolu lañ war nañ ci. waaw loolu fokk ñu wax ko jërëjëf Cheikh Tignal. secrétaire que la la ko Cheikh Tignal jërëjëf. Cheikh bu la nexé président. waaw Cheikh Tignal la lay tuddee xam nga ni tour bi arrangé na la <laughs> parce que da nga taxaw fi pour Tignal mo mais grawul ma li nga xam dama ko ci secrétaire bi. may bu fekkee ni lampe yu ma teg ngeen toj ko. sa bu ma tegee ay lamp ngeen grève toj ko. nu dëkk bi du la rek loolu tamit deugul dëgg la. nañ waxante dëgg ñaata lamp la tek ci rew mi ñaata lamp ngeen toj. lamp yi bu ñu tejul day fay day fay fay. lu koy fay dañ ko toj. ha ha ha bu dee ko ne geeg la da nga wala da am lamp essentiel yu wala am parce que de da kay teel a yàq xam nga foog nga xool espel bo xam mo xam lamp yi wala nek ci ko de geeg mais fa kay lamp yi nek ci keul mo nga def ci geeg gi day gaaw yàq loola. an ma la wax lamp yi nek sama keur la def geej yow tam da ngay tiñalat ne tiñal non damay laaj ci tiñal man yow da ngay tiñal non kër gi xanaa kër tiñal la li lan la. Ah. ah wuy ma. non yéen mais qu'est-ce qui se passe fii tey ko defee ku wax tiñal Macky ku wax tiñal Macky yow lan la. boo ko defarul rek Ousmane Sonko defar ko. xam nga xam nga. yow moom ku ma soof nga quoi <laughs> mais xaw ma dara da nga soof. maman maman. non mais non mais maman doon doon en tout cas en tout cas macha allah. doon ñu mais mais wax ñu na. mais rek ci ay ay ci def. Hmm? Hmm. parce que dafa nek ay points yo xani points yu hmm? sensible points yu naqare waxtane la. tay jël mama def ko mu nekk Marème Faye Sall nga jël sama doom baay bi Sarr nga def ko mu nekk Péex euh, ñànku ak ma numbe seen même lañu la ñu mhm. waaye Alioune Mbaye dal di def Serigne Moustapha euh, Serigne euh, Modou Karambak uh-huh. moom la mhm. te ku naw liggéey bi muy def la ba pare kontaan ci ni mu koy toppandoo mhm. nga gis ku muy toppandoo Serigne Moustapha Sy mu nekk loo xam ne lu alol parce que xam nga nee naa leen comédie dafa bokk ci luy dooleel réew. comédie tey boo demoon ci Amérique nga dem France ñi koy def ay château la ñuy dëkk. jet privé la am dañuy bëri alal lool parce que seen liggéey moo am solo. donc ni mu amee solo noonu lañu ñu war a dooleelee tamit comédiens yi nekk Sénégal jox leen ay cër. ba lépp loo xam ne nit da koy am. mu jógee ci teraanga ñoom ñu mën ko am. tey jotaay bi nga xam ne def nañ ko tey nii am na ñoo xam ni naqar ga ñu amoon wala diisaay xol bi ñu amoon. xel mi tëju woon mhm. tey ibbeeku na ndax mhm. jotaay bi ñu def nii mhm. naam gis nga format comédie bi ñu def mais ci biir comédie bi ñu ngi ciy dugal ay yeete loolu lañ ci jublu tey ji sëriñ Passy dafa nekk jëmm joo xam ni dañ ko bëgg naw ko lool ci suñu biir xol ñu gis liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci ndawi réew mi kon kooku mi ngi contribuer ci développement réew mi waaye mi ngi contribuer ci diine diine ji mm-hmm. nga xool ku mel ne sëriñ Modou Kara Mbacké mm-hmm. kooku mi ngi def ci diine loo xam ne lu jéggi daylo waaye mi ngi contribuer ci développement Sénégal mm-hmm. kon bu ñu demee ba seen i taalibe ak seeni doom seeni i sët dem ba naw leen fonk leen ci jikko yooyu ñu ñëw toog di waxtaane jël personnage am waaye jël bi ñu jël seen personnage ñu ngi koy rafetal ñu ngi koy sellal tey jii sëriñ Moustapha toog bi mu fi toog wax ju mu wax sëñ Moustapha moo ko wax sëñ Modou Mbacke toog bi mu fi toog mhm. lu mu wax sëñ Modou Kara Mbacke moo ko wax mhm. kon ñun dañ ci jóg pour yeete mhm. waaye juguñu pour dénigrer ci kenn wala xas ci wala wàññi ci kenn su suñuy kilifa lañu dañ leen war a kilifaal kilifoo leen waaye tamit ci biir comédie lii ku ko mën dajale ci télé kan moo mën a indi télé président Macky Sall toog toog nga indi toog indi ñànku indi ndum indi sëñ sëñ Modou Kara Mbacké indi sëñ Moustapha li musta am mhm. donc solo leen personnage boobu ñu def ci waxtaan bu am solo xastewuñ fi waxuñu fi lu ñàkk fayda wala lu ñàkk fula mhm. yeete ci en même temps jël ay thèmes yu am solo yeete ci mhm. donc nañ ko jàppee lu positif bañ ko jàppee lu négatif ñun suñuy kilifa réew kenn du leen sàllalu donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ci temps bi ngeen ñu may toog ñu waxtaane ko vraiment euh, ñoo xit kontaan naa ci yow kontaan naa ci maman kontaan naa ci mbay peex ñu bàyyi leen rek ngeen tàggu kenn ku nekk tàggatoo benn tàggatoo euh, une minute rek wala mm-hmm. yëkkati ndax Alima mi ngi ñëw ànd ak mm-hmm. euh, ay musiciens yoo xam ne dañu war a bégal di des ci spécial korité mm-hmm. bismillah euh, ñëw coq ñoo xit ñëw <laughs> waaw Cheikh dañuy dañuy dañuy amaat mbégte bu baax a baax di di di kontaan Euh, di baalu àq Sénégalais très rek. waa di leen baalu àq bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ndax comme li nga wax rek tey jii ñun liñ ci jublu rek moom mooy bëggal askan wi. Mm-hmm. liñ ci jublu rek mooy bëggal Sénégal liñ ci jublu rek mooy ñëpp reetaan waaye itam. li dafa am solo boo koy déglu itam ay jàngale na ci biir te yaakaar naa ñi seetaan ñëpp xam nañ ni jàngale yu am solo génn na ci kon loolu rek lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci jublu. Mm-hmm. Cheikh yow itam ñu ngi lay gërëm ci initiative bi nga am. parce que lu toll nii euh, kii wu Korité plateau yi lu ne daan am. Mhm. te palaato bu mel nii ci côté comédie parce que lii mooy wane ni cëral nga comédie tey comédien dañ leen war a jox cër dañ leen war a boole ci yëf te mhm. lii wane na ne da nga leen da bëgg comédien yi fii musiciens yi wala ñeneen ñi nekk. tey ama bëgg nga sax ñu nekk fu ëpp foofu mhm. moo tax nga valoriser ne nañu def palaato bu am solo pour bëggalee ko li nga xam ne mooy mooy mooy sénégalais ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte la sant di sant borom télé bi Bougane di ko ñaanal tawfiq parce que mom mo yombal lepp li mëna am. di di di di di gërem ñi nga xamné ñun dañuy dañuy dañuy seetaan. yow produit bugaan nga sax. wa wa lool amna ñun produit bugaan. yow produit bugaan nga parce que tey jii mo mayas moo mayaas nag jaal bugaan moo produire. Mm. tay ji suñu carrière ci mom lañu ko tambalé kon ñun produit bugaan lañu. Mm. dañuy tiitaroo bugaan parce que suñu kilifa la suñu lepp la dañ koy ñaan rek guddu fan. ndax mom ku ne xamna taxawayam ci réew mi. tàmbalee ko ci suuf ba ci kaw mhm. ci li mu def ci emploi li mu def ci lu baree bari loo xam ne tey jii jeunes yëpp dañ ko cee war a roy loolu dafa dafa am solo dañuy gërëm rek euh, ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan damay tàmbalee ci euh, waa Touba Mbacke di ñaanal Serigne Mountakha Mbacke yàlla guddal fanam parce que ñun Touba dañu koy tiitaroo ndax suñu kër baay fa la nekk foofu la ñu jàngee daara te tey jii foofu suñu enfance yu bari fa lañ ko defee mhm. di gërëm itam géejawaay gi muy mbaaru sëñ saaliw di gërëm ñi nga xamante ni ñooñ doon seetaan ñëpp waa waa waa waa yëmbal waa mbelgoor xara bandañ cawaan kër sëriñ Louga foofu yëpp foo dem samay maama nga fa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma limee damay juum di di gërëm nu mbelaan ga ma jógee ci ñoom sëñ Mbàkke Caam ak ñoom Mansour ak ah, gaayam fa bàyyi yëpp nu melaan yëpp rek maa ngi leen di gërëm fa laa jógee ah, di leen sant di leen gërëm di jaajëfal ñëpp bu baax a baax Cheikh ayca mama mama

toog ci télé di wax ginnaaw yàlla ñoom la donc maa ngi leen di ñaanal gudd fan wér gi yaram ah di ñaanal ñi génn àdduna mhm. yàlla na suuf oyof seen kaw mhm. yàlla na leen yàlla yërëm jéggal leen te xare leen àjjana waaw di ñaanal ñiy reste kaw suuf nag yàlla na leen yàlla may gudd fan ak wér gi yaram ba li ngeen séntu seen njaboot gi yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal te muy li gën ci yéen gis nañ ñaawteef yi am ci réew mi donc de passage mhm. maa ngi ñaan ah ñu gën a euh, renforcer sécurité bi xale yu ndaw yi tout tànk yi donc yàlla na la ñu yàlla sàmmal leen bu baax a baax mm-hmm. di ñaanal sama yaay gudd fan wér gu yaram dafa xaw a tawat yéen ñëpp maa ngi leen di ñaan ñaanal ko euh, uh-huh. maa ngi ziar très rapidement rek heure bi jot na ah très rapidement rek amul benn mm-hmm. maa ngi ñëpp di sant ñëpp di nuyu nag Kaolack gi ma mm-hmm. leen fan ak wér ak wér la àdduna lu muy rëy Sénégal laa ci am Sénégal lu di baalu àq di baalu nga xam ne ñoo yàq seen connexion di ñuy seetaan ñëpp maa ngi leen di baalu àq ci li nga xam ne mooy korte bi ñu jugee di nuyu nag ki nga xam mooy laay Dieng laay social mi ma jëlee kaw rek indi ma Dakar ak sama yaay Rugi Oumou Dabo ñëpp maa ngi leen di ziar di nuyu Mamadou Lamine Mbengue neen nag doyulul Touba la nekk opérateur mais mais aliment gi ñëw ki nga ni suma lépp la suma xarit suma doomu ndey muy xaadim DVD borom Gambia borom Touba Mbacke promoteur bu mag boobu maa ngi koy nuyu bu baax a baax di koy ziar. ñànku kontaan nañu xam naa si mais mais ñànku sa chemise bu bu bu yàqoo moom booy ba tegaat parce que mi ngi yàqu de <laughs> kontaan nañu. ñànku taalal sa micro ñànku li ngay fay sa micro bari na de. man dumay man dumay may gërëm tanaak tanaak tanaak du ma wax ci boobu bi laa wax. maa ngi gërëm ñëpp di gërëm wa Sénégal yep Sénégal <laughs> yalla fi jamm sax gërëm banlieue bi yep ndax man wax ba banlieue la mhm. ñaanal ñaanal ñi nga xamni ñoo am wéré di xel yalla sàmm leen may leen jamm ma ngi ñaanal ñep di ñu gërëm suñu waa kër di gërëm ñep taabi bi moo ñu xooj. jërëjëf waaw man ma ngi leen di gërëm yeen ñi nga xamanteni yeen la bokkal plateau bi di gërëm suñu frère laay la chef la grand sénateur ah. di gërëm sama yaay Adja Ndeye ma jigen bay diko ñaanal jàmm ak gudd fan ak wër di gërëm tawet compagnie sante yalla bi ñu andulon doon liggéey ci koor gi yépp ñu ngi leen di gërëm di gërëm papa Sanex di leen balu ak mhm. di balu ak suñu président Leyti Fall sante tawet sama teer bi nga xamanteni moma a ñawal waron naa ko sol ko waaye ñi ngi gërëm ñepp di wax Sénégal yalla na fi jàmm yak di sante tamit dof bu dop waral bi ak ñi fi toog ñëpp. xam nga xam nga dañu temps bi xaj ñoo muy sant ay yaam di sant ay ñaar soo sant yaam ma sant sama yaam fii ak sama soxna sama soxna nogay <laughs> yaa ngi gërëm fan no koy waa Grand Mbao mi ngi noonu maa leen gërëm baax ah, ah, yéen bu ngeen gërëmee seen yaay man tam maa ngi gërëm sama yaay man non damaa bëgg non non damaa bëgg ñun eh, comé eh. damaa bëgg ñun comédien yi nuyul ma xam ne ñun respecté nañu temps Alaaji Seex waaw waaw Alaaji Seex wax leen ci bi waaw ah, sant baax bu ma nuyoo Pikine naa ko ma numbe merci waa Pikine ndax ñun ay doom Pikine lañ Dominique lañ juddoo di nuyu autorité yi fa nekk yëpp ah ku ñoo Ablaye Timbo maire de la ville di nuyu pap Gorgui Ndong ah di nuyu Isaaxa Diop ah di nuyu Alaaji Mam booy Diawo nga xam <laughs> macha allah xam li ko war ci nit di la accompagner ci say projet ba mu sotti da koy def di nuyu Ibrahima Fati Isa ma ca pencum boppam Cheikh Ahmadou di nuyu njabootam gépp di nuyu suñu jëwriñ Cheikh Macoumba Kara Fall Nour Jamal di nuyu maire Soda maire bi ma jox tisi bi maa ngi koy ziar bu baax Serigne Saliou Thiam mi ma àndal moo ma moom basin yi day ñëw di ma jox rek moo tax fan yi macha allah ndax télé moom da am yére ba pare mel ni ko rafet ndax loo sol doo ko solaat mhm. di nuyu sëriñ Mamor bu sëñ Abibu bu sëñ Manumbe Xabaan jàmbaari sëñ Manumbe Xabaan jooju maa ngi koy nuyu di nuyu xam sa dini di nuyu soxna bu baax yaayu Cheikh Ahmadou Karam Mbacké noré ni maam jaara bu Cheikh maa ngi laa nuyu maa ngi lay fay maa ngi lay kontaane bu baax di la gërëm jërëjëf vraiment di waxee sa xol dafa yaatu nee naa léegi la animateurs yi bëri rek ku ne ku di wax ci télé waaye ba ngay animé ya xew xewul. xon naa la ko mooy yéen a si jàmm <laughs> di nuyu ñi ma bokkaloon plateau bi. Euh, sama gaay vraiment maa ngi leen di kontaan di nuyu waa Kër Massar fi ma fi nga xam ne fa laa dëkk. di nuyu bu baax nag ah euh, sama yaay moom nga xam ne ku ma xuloon même la tooñee man lay faral di bëgg ci moom di bëgg ci ki ma ñawal li ah. Mm-hmm. vraiment muy ñaa euh, ñaa couture bàyyi am couture nekk fële ca jaxaay 1. doom bàyyi man du temps day dem. ñaa mu ngi ne mu ngi nekk jaxaay 1 fële après jolof ci kën bi. Mhm. vraiment moo ma ñawal li numéro di numéro di 243. waay waay waay waay numéro ñaa boo bëggee mu ñawal parce que bi passé moom ma ñawaloon jotuma ko wax. Mhm. numéro di 77 243. 62 euh, 22. Hmm. boo ko woowee di nga ko jot vraiment di nuyu Ndiaye li net taxawal pare ko. Eh, eh eh, eh ko ñal la waa Pikine. Eh, waa Pikine mi doon Alaaji Alaaji Seex. waaw waaw waaw rek Bas Bas borom Ah, moomu jox daal yi. Ah, waaw euh, Siri Awa. numéro am temps bi waay waay. xoolal man lii dama bëgg maanaam Serigne Medoune Seye borom tawféex. waaw bàyyi ndeyam ñun ñëpp a gaare. waaw lépp ngir yàlla ak moom. ci lañ jëmoon gaa yi ni ma. naa ko wax ñu eh, sant non sama ngi ñëw. ma bu ñuy tëj ma waxal leen ko. jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax. benn benn nit benn nit benn nit. waaw. maa ngi nuyu baax euh, Badou Badou Noé Seres nekk koor bari la ma jox. jërëjëf léegi nag waaw waaw may jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur u Sen TV kontaan ci suñu xarit yi ñu gunge woon lii lii lii yéene dañu am yéene dañu am yéene waaye temps bi ay ay ay bi bi ngeen sol bi ngeen bi ngeen solee bi ngeen solee yére yére yére ñi fi nekk da ngeen correctoon léegi su ma ngeen yére yi bëgg a incorrect léegi wuy ma li ma bëgg waaye ba may ma waaye non may ma may ma voilà léegi li ma li ma bëgg xam na laa bëgg xuy ma waa léegi waa dëgg léegi léegi li ma bëgg mooy lii dafa nekk loo xam ne yéene bi ci am mooy muy am chaque quinze jours quinze jours yéene boobu rek laa am te am naa yaakaar ni niñ ko defee keroog mu neex kilifa yi ba ñu joxaat ñu ko tey am naa yaakaar ni war nañ ñu ko mën a may chaque quinze jours yoo xam ne dañuy ñëw xool actualité yi nga xam ne am na ci quinze jours yi jàll ñu waxtaane ko lépp ci teggin ak yar nag du ñu offensé kenn ñu ngi gërëm bu baax a baax équipe technique bi ñu àndaloon ñëpp mooy li ko dalee ci euh, caméraman yeeg techniciens yi ñëpp ñu ngi leen di remercier sonn nañ ci bu liggéey nañ ci parce que lii dañu créé benn groupe WhatsApp boo xam ne tuddee ko GP Comédie depuis boobu léegi dañ ciy waxtaan ku ne di joxe say idée donc faw ñu gërëm ñëpp ñëpp ñëpp di wax téléspectateur u Sen TV incha allah ajaratu Alima Ndione Mbaye Mbaye Jojo Fari dina ñëw gunge leen fii ba fajar ànd ceeg ay artistes renommés incha allah ngeen jëf bonsoir. sur Sen TV la télévision leader spécial qualité ak. seen meewu dano meew bi ñu saytu ci gétt bi mbaa si seen kaas. Free Money mooy ànd ak yéen ngir leer weeru koor gi di law saa su ne ak Free Money mi leen may seen émission préférée di qui ci sa Ramadan. héritage couture by l'héritage de la mode livraison partout dans le monde Soboa ànd ak World Cola Goubi vraiment meilleur Gazelle Louyag Gdegle. Advimto ak Vimto Express Cash Eco Ecobank eau minéral Naturel, la Casa Mansaise, bu sell te galas sañse yu riche Turayo yu amul dal pochette ak Ammana, yu bijouterie la solution l'islam 2 fi Oriombe Terrafet ak Imperial Diamond bazin de haute qualité fabriqué en Autriche sur Sen TV la télévision leader spécial qualité ak. Sen meu dano, meu biñu ñu saytu ci gétt bi kasa. si seen kaas. Free Money mooy ànd ak yéen ngir leeru weeru koor gi di law koor ak Free Money mi may émission préférée di Free ci sa Ramadan ak héritage couture by l'héritage de la mode livraison partout dans le monde Soboa ànd ak World Cola Goubi vraiment meilleur Gazelle lu Gdegle, Advimto Express Cash Eco Ecobank eau minéral naturel, la Casa Mansaise, Norbusel Tewor, te wóor galas yu riche Touray yu amul pochette aksak sac yu Ammana, bijouterie la solution l'islam 2 fi Oriombe yombe Imperial Diamond Basin de haute qualité fabriqué en Autriche Découvrez la carte Free Mastercard accessible à tous, quel que soit votre opérateur. Avec la Free Money Mastercard, vous pouvez payer directement en magasin, payer en ligne et retirer dans tous les gaps au Sénégal et dans plus de 210 pays. Des Free si se calper. Chérie, non, def, comment ça voyage. Ça va, ça va. Mais chérie, qu'est-ce que c'est mes chaussettes euh, Mon petit poche valise. Ça va cravate, non Mon petit poche veste B. Mais attends. Bébé, man, ça m'a carte bancaire, fatina ko. Kerga Mais il y a un téléphone, non général le compte espèce cash et puis euh, nga def sa retrait. da nga ni man Sénégal. sa compte cash nga retrait ci en plus 1 comme Sénégal. yow nga. ñu bonne journée à toi Express Cash Sur sa application Ecobank mobile wala ci Jazz 22 22 retirer 1 pour te carte bancaire. EcoBank, la banque panafricaine. Puisée au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamance est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamanceaise, naturelle comme j'aime. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux arrobase au 15 Casement 16 vous souhaite un bon ramadan. te ak barke sa su nekk ci weeru sel le ñu jëm groupe Arla moo len di si gunge ak produit yi gën ci sen waañ waxtu mbégte yoo di dund ak sen mew dano sen gamme fromage Arla ak sen beurre lure pak mu mi ner ci mburu te gën ci seen togg weeru koor gi lépp la ñuy bokk ngir ful suñuy mbégte ak suñuy produit groupe Arla weer wu sell produit yu sell rek ñu ngi leen di ñaanal kóoru jàmm La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Existe aussi en bouteille plastique 100 et 30 centilitres. Qualité Soboa gannaaw ba mu lancement au site internet pour héritage couture teg application mobile pour héritage couture Modou Gueye l'homme des innovations Pour innover ci ñaw ñu ne Modou Gueye waaye nag bi showroom boo xam kenn Sénégal le Modou Gueye héritage ubbi fan zone de captage rond-point EMG ah lolonak, l'homme de la haute couture le ñu ko tuddee Modou Gueye héritage àndandoog un personnel qualifié venez voir la dernière collection de Modou Gueye héritage dans un cadre luxueux et convivial. Wol 77 643 80 59 ou le 00 221 78 636 02 03. Héritage couture, l'héritage de la mode. Imperial Diamond bazin de qualité supérieure Fusneger Nak hamgen ko ci qualité xam ko brillance neex ci yaram yamul Fofu, exclusivité bu mouille le bazin éminent 100% coton pour la première fois mélange viscose ba coton ba neex basin original Fousnegger. La boutique Mokofi indi wala chez Aksalam, ak salam avenue Lamine Gay, angle Grasland 78 306 12 61 Palais, 4 rue Paul Hall 77 577 87 59 pour commerçant Boubek bazin Foussneguer Tila, l'âme boutique ngay marché HLM en face Guigui. Tu es tout pharmacie Léopold Sédar Senghor Wotel, Ngalak Cheikh Ndiaye 77 507 31 21 bazin de meilleure qualité fabriqué en Autriche. arrivage Boubès, tu bijouterie la solution ah jigéen aji jaam indeeti nga lu bees de jigéen ni a jëm bijouterie la solution lu xew ñu né arrivage bu bees indi bijou yoo xam ni bracelet yo xamni machallah macha allah boucle d'oreille yoo xam ni macha lu bees tak tak arrivage bango ngoog sañse ba or la amna ñu espace privé nga xamni da ngay ñew yéeg ca kaw daal di dem nak ñu daal lay génneel bijou yi nga daal di tànn sa ay bijou lolu moy vente privée boobu wol madame Niang aji cham ak am classe te nangoo liggéey te déggal jëkkëram nouveauté Yango, you ngoog yu bees yaa ngi soog ñi gis arrivage bu mel bracelet bijou en or lii ci bijou yu am classe lii ci bijou yu sogo wacc 78 388 61 61 wala sax 77 554 58 62 wala 78 100 53 53 am place pikin Tali bu 77 720 27 27 ay bijou bijouterie la solution. Sorano la nga teg Pikine la nga teg Sacré Cœur aji caam wàcc ñu say nawle la ñu def ñu ndànk sëñ Fallu mooy mbégub Sénégal ku ne dégg na ñu naan Cheikh Galas ah kookan la ñu ne Mariane Mendy di Baye Fallu sëñ Jili mu sëñ Fallu ah damani ni Baye Fall baa ngoog dama ni mës ngeen a dégg loolu Mariane Mendy ñëpp xam kook sëñ Jili mu sëñ Fallu ah dama ni la ñu ne borom basin yu baax yi kookan la ñu ne moo représenté fii ci Sénégal basin victoire waaw basin Getzner di ko topp li muy indi ci Getzner amul fenn ci Sénégal Getzner imprimé moo ko fi njëkk dugal ci réew mi brodé Autriche place am Brodé Péchère place am nga koy HKG place am nga koy Brodé Bangkok soie yi nag lu la réer ci soie ci àdduna bi fekk ko ci place Velour velours naka voile suisse chaussure d'Aliette Pochetti, pochette yi yu baax yi nag parfum de classe yi ma ne yéen lii xeeñ nii lu mu doon ma ne lii xeeñ nii lu mu doon waa Marianne Mendy lii cuuraay ah Marianne ah Marianne ah Marianne ah Marianne cuuraay li ëpp na de waa Marianne ndax am nga bazin Veba mu ne bazin Veba fii Fek fekk baax bazin Veba couleur la la wax nii de couleur yi jigéen ñiy wut yépp ci bazin Veba mi fii Karak numéro 10 Tu juma Karak bi wala nga wo Marianne Mendy 33 824 80 24 33 824 80 24 wala 77 798 0003 wala 77 122 0000 Fofon la ñu né boutique Ndindi Kër Galas chez Marianne Mendy di Falou Fallou seigne Jili mu seigne Fallou yi suisse mu indi kenn musu gis. Sur saint TV. chéri noo def naka sa voyage. ça va ça va mais chéri gisoo samay chaussettes. Euh, mu ngi ci poche valise. sama cravate nag. mu ngi ci poche veste bi. mais attends man sama carte bancaire yëpp fàtte naa ko kër ga. yaa ngi sa téléphone non. général benn compte espèce cash et euh, nga def sa retrait. loolu mën na nekk da nga fàtte ni man nekkuma Sénégal. bu dee yaa ngi sa compte espèce cash mën nga retrait fépp ci waa en plus 1 pour cent rek la comme Sénégal. yow daal naa nga. ñu yéen jàmm. Bonne journée à toi, bébé. ak Express Cash ci sa application Ecobank mobile wala le dièse 22 22 dièse mën nga retirer xaalis ci 1 pour cent dong fépp ci UEMOA te nga carte bancaire Ecobank la banque panafricaine. mbégte ak barke ça su nekk ci weeru sel, le ñu jëm groupe Arla Moulin de di si ak produit yi gën ci seen waañ waxtu mbégte yoo leen di dund ak dano seen fromage Arla avec une brûlure pak mu sell mi nerf ci mburu te gën ci seen togg corgi? koor gi la ñuy ngir ful suñu produit groupe Arla est le sel. produit sel sel rek ñu ngi leen di de la Casamance, dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamanceaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamanceaise, naturelle comme j'aime. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, arrobase Au Casamance vous souhaite un bon ramadan. la chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Existe aussi en bouteille plastique 100 et 30 centilitres. Qualité Soboa. Découvrez la carte Free Mastercard, accessible à tous, quel que soit votre opérateur. Avec la Free Mastercard, vous pouvez payer directement en magasin, payer en ligne et retirer dans tous les gaps au Sénégal et dans plus de 210 pays. Des se calper gannaaw ba mu réussir lancement au site internet pour héritage couture teg application mobile pour héritage couture Modou l'homme des innovations ku innover ci ñëw ñu né Modou Gueye wayé nak showroom bo xamni kenn musu ko ci Sénégal le Modou Gueye héritage big fan zone de captage rond-point EMG ah lolu l'homme de la haute couture le ko tuddee Modou Gueye héritage donc un personnel qualifié venez voir la dernière collection de Modou Gueye héritage dans un cadre luxueux et convivial. Wolmo 77 643 80 59 ou le 00 221 78 636 02 03. Héritage couture, l'héritage de la mode. Imperial Diamond bazin de qualité supérieure Fousneger nak koti ko qualité xam ko brillance neex ci yaram waaye Fusneger yamul fofu, de femme exclusivité Boubès, mouille le bazin éminent 100% coton pour la première fois mélange viscose ba coton ba neex bazin original Fusneger Lame boutique Mokofi indi wala chez Jam ak Salam avenue Lamine Gay, angle Grasland T 78 306 12 61 No Palel 4 rue Paul Hall 77 577 87 59 bépp commerçant bu bëgg bazin tu ci Lama boutique ngay marche marché HLM en face Guigui, tu ci tout pharmacie Léopold Sédar Senghor Wotel nga laajte Cheikh Ndiaye 77 507 31 21 bazin de meilleure qualité fabriqué en Autriche. Sur Sen TV la télévision leader spécial qualité. ac. C'est meewu dano. Mew bi ñu ci tv Free Money mooy ànd ak yéen ngir leeru weeru koor gi di law saa su ne suukaral sa koor ak Free Money mi leen may seen émission préférée di Free ci sa Héritage Couture, by Moudougueil. L'héritage de la mode. Livraison partout dans le monde. Soboa bois World Cola. Goubi de vraiment meilleur. Gazelle, lu Gdegle. Advimto ak Vimto Express Cash Eco Ecobank. eau minérale naturelle. la Casa Mansaise, bu Salete te ak ndindi galas. yu riche. tura yu amul pochette ak yu bijouterie la solution l'Islam 2 fi orion Akfusenegger, Imperial Diamond bazin de haute qualité fabriqué en Autriche sur Sen TV la télévision leader spécial qualité. ak. Sen meu Dano, meu Binyou ñu saytu ci masi sen kasa. Free Money moy ànd ak ngir lèr weeru koor gi di koor ak Free Money milen may émission préférée di Free.